commissaire euh, Sadio euh, Boubacar Sadio maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi alors euh, ah. ngay commissaire à la retraite ñu gis ne bés bi nga xamante ne moom la ñu jagleeloon nag forces armées yi njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye xam ne ne bëgg na rek développer fii ci Sénégal ak industrie nationale de défense ana nan nga ko gisi waaw eh, man de sama jëmmu bopp moom. Euh, décision boobu ak mbébét boobu euh, président Bassirou Diomaye Faye am wax dëgg yàlla na kontaan naa ci lool te maa ngi koy rafetlu waaw te ma yaakaar ni bu weesoo mbiru militaire day dogal boo xam ne eh, yaakaar na ne dinañ ko lewal ci domaine yu bëree bëri parce que loolu mu ngi dugg si ñoom politique bi nga xam ni moom la ñu bëgg taxawal si biir dëkk bi muy politique d'industrialisation waaw donc ni mu tàmbali ni ci mbirumu armée yaakaar naa ni dina law ba dem ci yeneen secteur ñu war di mën a di defar fi ay véhicule civil di mën di defar fi ay tracteur pour suñu béykat yi ak yooyu quoi ak yeneen jumtukaay yi daal. Mhm. alors ñu def ci koppar gu toll ak trente cinq euh, milliards euh, ñu signé ko nag diggante gouvernement bi ak euh, société bi nga xam te ne mooy yor wàllu boobu lii mu mel nii koppar gi tamit takku na. waaw koppar bi takku na parce que dayoo projet bi moo toll noonu. waaw donc liñ si mën a xam rek waa ci sama wàllu bopp mooy njëg li daal waaye li nga xam ne moom moo nekk ci biir protocole bi moom wax dëgg yàlla lu mu ump la waaye daal yaakaar naa ni effectivement autorité protocole boobu ñu signé ak société boobu waaw li mu wóor ba wóor mooy intérêt Sénégal daal euh, ñu jël ko ci en compte hmm. waaw maanaam ñu sàmm intérêt euh, Sénégal waaw je crois que daal loolu moo ci am solo te ñu xam ne aussi euh, mbirum militaire la te xëy na am na domaine bu sensible la maanaam xëy na dina am ay mbir yoo xam ne wala ay dogal yoo xam ne wala ay signature yoo xam ne xëy na duñ ko mën a siiwal ci grand public bi daal waaw parce que quand domaine bu xaw a sensible la quoi mhm. waaye xam naa ne ñii ni ma leen xamee nii euh, lépp daal dina jaar ci transparence alors muy usine boo xamante ne daanaka euh, toll na ci mille euh, véhicules ay auto militaires yoo xamante ne euh, daañu ko taxawal fii ak at ñu fas yéene kaa defee ca Mbàkke pour yow lan moo waral ñu tànn Mbàkke ngir mën ko faa defee. waaw d'abord ci ci ci limu oto yi ñu ne junni oto at bu nekk. Mhm. xam naa ni war na xel war na xam ni effectivement que oto at bu nekk Sénégal dison soxlawu ko pour ay ay ay ay militaire am. waaw donc dama yaakaar ni de oto yoo xam ne usine boo xam ne buñ ko samp fii waaw Sénégal moom dina am wàll boo xam ne dina ko jagleel moom ay militaire am ak ay forces de défense et de sécurité am waaye yu bëri aussi xëy na dina di satisfaire ay commandes yoo xam ne ñu ngi jóge bitim réew maanaam dëkk yi nga xam ne xëy na moo ñu wër waaye nag aussi am na poñ boo xam ne su soulevé nga ko mooy euh, lu tax ñu tànn Mbàkke dama yaakaar ni rek. Euh, d' abord tànneef bu baax la n' est ce pas day wane ni xëy na sunu euh, autorité yu bees yi danoo bëgg toujours di génne yëf yi euh, ci biir Ndakaaru su génn di ko génne si région Dakar waa pour ñu mën ko yóbbu si yeneen gox yi quand waa te Mbàkke aussi avantage mooy li tubaab di wax centralité dafa xaw a nekk si biir si digg dëkk bi daal je crois que ensuite boole ci aussi vraiment moom mooy département bi nga xam ni moo ëpp population te ñu xam ne li ëpp ci population xale yi la je crois que occasion la effectivement pour ñu utal xale yi ay xëy daal ah, ñu jàppale nu côté boobu daal te dina am leneen loo xam ne jur na usine bu mel noonu boo ko sampee dina am yeneen activité yoo xam ne mooy war usine bi n'est-ce pas yooyu aussi ay sénégalais ñoo ciy profité je crois que lu baax la daal. ndax loolu euh, dina mën a tax ba tey Sénégal moom boppam ci wàllum équipement. waaw euh, déedéet parce que quand Euh, si njëlbeen bi lu caagee ni sax dana war a ut li ñuy wax indépendance totale ci wàllu équipement parce que quand même am na ay euh, jumtuwaay yoo xam ne ay oto yoo xam ne euh, dafa ànd ak ay xarala yu bees yoo xam ne ñun àggaguñu foofu waaw je crois que daal effectivement li nga xam ne moo gën te xam naa autorité yaa ngi ciy liggéey mooy bu ñu demee ba jamono jamono effectivement ñu war a mën di ut li liggéey oto yoo xam ne ni eh, ñu koy defaree ci yeneen dëkk yi ñu defaree ko noonu. Hmm. mais pour l' instant je crois que eh, li nga xam ne moom la ñu bëgg a defar ci oto eh, aajul yenn technicité yu rëy rëy yooyu ko hmm. bon mais bu ñu demee ba ci kanam effectivement je crois que autorités yi dinañ ci dinañ ci farlu ba nga xam ne effectivement dinañ gën a am indépendant ci wàllu googu ko waaye li ñu jot a defagum nii rek déjà lu baax la parce que day tax. ci yenn wàll yi eh, effectivement ñu mënal sunu bopp mais également li tubaab di wax disons autonomie stratégique hmm. waaw boo xam ne dafay jaar eh, ci eh, ñu mën a am oto yu doy ñu mën a di tubaab di wax aussi monter en puissance ci sunu wàllu matériel roulant mooy oto yi di daw moto yi di daw ak yu mel noonu quoi loolu si am na si solo quoi. je hmm. loolu résultat bu immédiat la boo xam ne mën na ko ci am daal. alors est-ce que waruñoo gën a mën a moderniser yi tamit équipement yooyu la. waaw waaw mais xam nga fi mu toll fi ñu ngi ci boo xam ne euh, loo def loo xam ne motorisé wut ko defaloo ko bi rek waaye yow da ngay des gannaaw quoi. Hmm. donc matériel yooyu ñuy defar fi oto yooyu nga xam ne naan ko defar fi vraiment de moto yoo xam ne ay oto yoo xam ne vraiment oto yu moderne lay doon yoo xam ne dafay méngoo ak li nga xam ne moom la jamono laaj bon xëy na fekk na fi ay matériaux yoo xam ne xëy na yu yàgg la woon wa matériaux yooyu fii ci sunu xam-xam ci sunu mën-mën effectivement mën nañ ko moderniser ba nga xam ne dañ ko réadapter li nga xam ne nag mënuñu ko réadapter xëy na bu boobaa euh, autorité yi dinañ ko ut pexe daal dañ ko daal di réformer benn yoon rek. alors lan moo war gën a mën a nekk li nga xamante ne mooy rôlu force armée yi. waaw force armée de moom mission mooy euh, aar réew mi. Hmm. waaw. te si loolu euh, ci jamono bu nekk ci waxtu bu nekk ak lu mu munti demee assurer euh, sécurité ak intégrité li nga xam ne mooy territoire mooy fi nga xam ni fa la sénégalais yi dëkk muy réewum Sénégal waaw mais aussi assurer sécurité population vraiment loolu mooy rôle fondamental armée sénégalaise quoi mm-hmm. waaw léegi nag moo xam yeneen force loo xam ne muy police ak gendarmerie ko si jàppale si kenn wet quoi moo tax ñu waa force de défense et de sécurité quoi. très bien en tout cas Boubacar Sadio jërëjëf may fàttali rek ne yow commissaire divisionnaire à la nga ñu ngi lay jaajëfal bu hmm. baax a baax. waaw ñoo ko bokk ñoo ko bokk di kontaan aussi si laaj yi parce que day tax ñu mën di génne askan yi ci loo xam ne xëy na ëmp na leen daal jërëjëf.